Bonjour, yi salaamaaleykum Dalen leen sur www.igfm.sn donc tay ñu am bekté di dalal ki nga xamanteni moy Halima Gadji donc tay dañ leen ko indil mu waxtaan ak yeen euh, ci projet bobu nga xamanteni mom la génné moy euh, le futur etanu. donc euh, dinañ leen ko indil mu waxtaan ak yeen ci lan la nekk en dehors des séries hors caméra lan lay def donc Halima contane nañu dalal la fi ci IGFM di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. Ah, maa la gëna contane. merci beaucoup ci dalal bi ma dalal fi ci IGFM. Euh, di nuyu tamit euh, mbokk téléspectateurs yi bu baax. Mhm. donc nga jóge Paris euh, récemment en promotion la woon wala ay vacances la woon. promotion la woon et ci wàllum tamit festival bu ma demoon participer mais li ma gënoon yóbbu moy def promotion wu série bu bees bi ma def. Euh, donc euh, nit yi namoon la euh, après maîtresse d'un homme marié gisuñu la won ci yenen production peut-être yu Africa et tout donc nga ñëw ci le futur Etano est-ce que mën nga ñu waxat ñëw ci projet bi expliquer ñuko un peu. futur Etano projet panafricain la buy def né acteur panafricain yu bëri dañuy dajé ci projet bi euh mu nek projet buma neex parce que gën na ma ubbil ci sama euh, actrice te tax jouer ak yeneen acteurs qui ils sont ils sont vraiment réputés euh, dans leur métier euh, mu indi un scénario boo xam personnage bu dal bu qui n'a rien à voir avec le personnage de marem donc expérience la woon pour man est-ce que mën nga ñëwaat un peu ce rôle bi euh, suma ma journaliste ngay incarné fofu euh, personnage mais joué Abi la tudd journaliste euh muy seyek ben Ivoirien bu tudd Henri bi mi démé Abidjan lay soga a jëkërëm dafa amone seex. Euh, malheureusement nak bañu ñu mu ñak jëkërëm ci ay anam yu yu yu yu doy war moy taxal mu lal ben enquête bo xamné ne ci découvrir ne jëkër ji dafa amone seex am euh, famille bu mag euh, Abidjan am ci tamit doom bu góor boo ne adolescent la mais vraiment histoire bu bu neex parce qu'il y a plein de rebondissements il euh, y a une séquence qui a marquée parce que si ma juumul euh, da tourné saison bi ba mu après doog a teg euh, contrairement lay Sénégal. oui li li gën a projet bi mooy dañ ko tourné ba ba mu pare diffuser donc ça nous laisse aujourd'hui le champ libre en attendant que la deuxième saison se se met en place. Euh, tournage yi yomboon c'était pas compliqué. Puis vraiment yomboon non parce que amna organisation bo xamné machallah da ron tax ne euh, dañ don xey heure di wàcc heure euh, dañ don xam deux jours avant wala trois jours avant lañ don jot suñu suñu jour à jour xam la ñu wara a vraiment bu se sentir duma pression. Euh, donc à un moment donné euh, nekkoo woon Sénégal pourquoi le choix nga quitter Sénégal pour dem Abidjan. waaw liggéey rek moo ma fa yóbbu woon ma jot euh, contrat boo xam ne dafa tax ma jóge fii dem foofu noonu. mais installé wu woo fa ci da nga ñibbisi. bon pratiquement dama installé wu woon ba ma paree sama liggéey ma ñibbisi. ok donc cette rupture avec Wa Marodi TV est-ce que amaat ngeen jàmm et tout. mosuñu am problème. Bon, ce qui s'est passé, oui, je suis partie et puis euh, euh, je préfère ne pas en parler parce que c'est de l'histoire ancienne. ok est-ce que tu as regretté le fait de jouer euh, maîtresse non homme non regretté wu ma ko wax maîtresse moom mënu ma regretter parce que euh, maîtresse mon projet bi bi bi ma koy xam yeneen acteurs yi xamuñu ko woon euh, ki taxoon ma dugg ci du du du liggéey moo mais c'était plus que ça relation de petite sœur à grande sœur et d'amis. Est-ce que Doudoufi Sénégal euh, yomb na ak nos pratiques les tabous et tout. bon dundu Sénégal euh, ak ak ak métier bi ma def bi may mo xam un ci métier parce que voilà vous du un borom et puis euh, rôle bi tamit taxul woon xam nga rek yaa ma gën a xam jarul may ci détails eh, euh, Khalima Gadji est-ce que euh, parfois euh, les choses que tu as les vécus c'est parce que tu fais trop confiance aux gens Oui, ngay gaaw nit. tamit souvent je fais confiance parce que ah dañuy naan nit nit garabam donc man mënuma dem à demi mesure soit je te fais confiance soit je ne te fais pas confiance. D'accord. Euh, donc, vous avez vécu pas mal de choses, euh, comme j'avais dit tout à l'heure. Est-ce que euh, Taïdjini, la moi de sa force la moi force Khalima Le fait de pouvoir me relever, Le fait de pouvoir me relever, de relativer et d'avancer. vous êtes devenue sportive, c'est liguer-le, ou ça te relaxe ou ça te fait du bien Le sport, c'est bien pour le mental, c'est bien pour le corps. Donc, c'est un moyen de, de dégager toutes les énergies négatives. Euh, bonne différence là am entre Halima Gadji l'actrice. différence bi la après c'est bi je rentre chez moi je suis en famille je suis mère et euh, voilà ça ça, s'arrête juste au moment où on dit action et coupé. Rolling que joué ça n'a rien à voir avec sa personnalité mais non Quand moi Halima Gadji. <laughs> c'est euh, une personne entière. Euh, c'est la fille de sa mère, la mère à sa fille. Et euh, c'est une personne qui, qui, qui cherche à se surpasser tous les jours. gisoon naa benn interview bu ma doon seetaan euh, nga ni euh, xawoon en 2012 est-ce que tey jii nii bu doon lu défat? sur le terrain te battre pour lui. je suis une voix pour la population tey sama de bu nekkee ci ay anam yo xam ne damay terrain bi manifester lu oui. d'accord vous êtes féministe. bien sûr féministe euh, dans le sens où euh, les may ñaanal sama euh, sécurité ses droits et puis voilà qu'elle soit intègre dans la société. Euh, dañu jours euh, gis nañu que ne réseaux sociaux yi dafa nek arme de guerre kenn dula neex wala kenn mi ngi nek di liggéey euh, nga waxal ko fa lu ñaaw lo xamantene peut-être bu tëddee sax du nelaw nan ngay dundé lolu su dee mës nga ko dund aussi. wa ñun personnage public mom moom liñ koy bu bari na mais bo jëlé exemple <laughs> ci yonente bi rek da ngay xamné euh voilà amna amna ño xamné ñoo xam ne bu warula tax nga nga nga am manque de confiance parfois nak wax bi dina metti mais xamna naa ne yàlla mi ngi tim sax amna ño xamne xam ko donc euh, da ngay wat sa xel ci yalla rek xamne tout le monde ne peut pas t'aimer après nak wax bu ñaaw bi mën na si parce que jarul ngay bindal nit ki lo xamne bu ngeen taxawoon dok saña sañ a wax. allumer un cœur à prendre. bien sûr. <laughs> kon mariage bo ma don gis ci réseaux sociaux. loolu joué donc la won <laughs> Alors, l'homme idéal pour yow nan la l'homme idéal est-ce que l'homme idéal existe. ah peut-être qu'il répondre à tes critères. ah man ne, ne mot pas xam nga ñu de un couple euh, entrepreneur un couple qui s'entend donc vraiment j'ai des préférences comme tout le monde hein mais après je sais que l'homme idéal n'existe pas ouais. na la veux pas respecté la. Ne respecter, bëgg respecté ma bàyyi ma liggéey. <laughs> d'accord moi, c'est un projet. mon projet instant yi ci entrepreneuriat bi la dama des di ubbi boutique euh, boutique Eiffel et puis Eiffel, une Eiffel marque de marque de diffuseur là, de maison des parfums et autres produits ménagers.